maa ngi lay wax sànq ni euh, li Ousmane Sonko doon wax ne euh, président dafa bëgg tànn ñi nga xamante ni ñoom ñooy dem euh, fekk élection yi gis nañ mu choisir Amadou Ba yu deme noonu ban jàngat nga am yaa yaakaar dafa mel usman Ousmane Sonko daan la wax ni Ousmane Macky Sall dafa bëgg a tànn ñi nga xamante ni ñooy dem 2024 et aussi tamit éliminer ko pour mu bañ a bokk. waaw maa ngi gërëm sam benn xarit dolli. Mm-hmm. maa ngi koy gërëm bu baax. Mm-hmm. Angleterre la dëkk quoi. Mm-hmm. di suma xaritu bopp. maa ngi koy nuyu bu baax dolli. Mhm. maa ngi koy nuyu quoi wax dëgg yàlla. Mhm. noo mais xam nga lii ah, Sonko doon wax. Mhm. yaa ngi dégg. su fekkee def nañ ko. su fekkee def nañ ko. daf leen xam rek. loolu lay nduru fait. ah moom lay nduru ki war a en tout cas non xam nga tey. man gëm naa boo xotoo nga bàyyi askan bi ñu tànn nga dem sa yoon. nga ne leen tànn leen ñu tànn ba pare élection yi di ñëw moo war a gën a moo xoola élection yi musul am moo moo war a am xam nga mooy ndax ndax lan mhm. c'est la première fois élection am président bi nga xam ne président sortant bi mhm. arbitré tànn <laughs> non non mu arbitré wu tànn warul tànn dafa war a arbitré mhm. mais tànn sa mbër ak mbër mi daan du benn de pour man chefu parti lañ tànn Mhm. mais tànn tànnuñu njiitum réew. comprendre na ko ñin ñi def seen bopp. Mhm. seefu parti ak njiitu réew du benn. yaa ngi dégg mais mhm. tactique yi ma la tegal ne la. ndëgg sërëx yooyu mën nañ ci dugal gaa yi. foofu moom bu ñu fa dalee mën nañ dugg te bu fekkente ne ñoom. dañoo xëy ne leen gañe nañ leen ñuy am ay wax ju bëri. international dañuy jàpp ni gaynde ak segg ak ñay. bu ñu songee bëy war nañ ko mën a tër. parce que parti yi ma la limal nii ñoo gën a siiw international te international dañu jàpp ni. tur dañuy jàpp tur tur fekk tur jeex na bu yàgg dara nekkatu fa. Mhm. tey jii seen coalition bi ñu coalition nii xam nga lu tax nangu ñoo tas. Mhm. parce que bu ñu tasee da ngay gis seen ñàkk doole. ñoom ñëpp xam nañ ni amatuñ dara kenn ku nekk sa moroom nga am. Mhm. ñoom amatuñ tus kenn ku si nekk sa moroom nga xam loolu lu ku ku nekk xam nga nan la amee moroomam. su ma ñëwee sama waa kër ñëw. waa kër keneen ak keneen ñëw mitin bi du fees. day fees. am na wala amut mais bu ñu tasaaroo nga xam ne amuñu dara. kon na nga yaa ngi dégg euh, maanaam tasaaroo bi nga xamante ne opposition bi nga koy def baaxul ci élection euh, parce que après dañuy xaajoo ñi nga xamante ni moom mooy kii bi. déedéet man xam nga sànq dama la wax te comprendre xëy na am na ñuy seetaan ñoo xam ne dinañ comprendre. Mhm. wax naa la ne ndëgg sërëx bi ñu mën a teg dëgg. Mhm. mooy bu ñu tegee Amadou Ba am ñu gedd dem. bu ñu dañuy gedd geddul. Mhm. bu ñu gedd gedduloo di attaqué Amadou Ba. dañuy demaat séddoo askan bi ak opposition bi. d'accord bu ñu séddoo askan bi opposition bi ba mu dëgër. même boo bàyyee Sonko fekk séddoo nañ askan parce que sénégalais ma wax la benn affaire dafa am benn habitude. habitude boobu jikkoom la mooy tey boo gisoon sénégalais nii nga nuyu ko nii. Mhm. mille 2024 bii nga ko nuyu mu gis ni yow mii kat menuisier nga doon liggéey. Mhm. su la gisaatee deux mille 2035 danaa la ana atelier ba ana ban yi nga doon daaj yaa ngi koy daaj ba léegi. foofu la lay fu mu ok bopp bi xam nga waaw au lieu que ñu ñu ñu euh, jéem a avancé si seen xel. Mhm. seen xel soriwul. ba pare Ousmane Sonko ak Bougane na lii nañ ko def seen xel buñ ko naaguwaale sénégalais yi. Mhm. dañuy seetaan émission mais duñ la déglu. dëgg la wax naa ko mille fois gis naa ñu ko pirate sax dem di ko wax si télé yi. Mhm. comprendre la dañuy seetaan émission duñ la déglu. yaa ngi dégg ba pare déglu déglu nit ki dégg nit ki. moo ko gën. léegi la kan ngay dégg dégg mooy nga seet ki nga xam ni yéen a bokk bokk xalaat mm-hmm. sa nawle la xam nga luy nawle est-ce mm-hmm. ak maas nawle ak maas dafa baax maas mooy ki nga xam ne dafa man damay wut nga wut même génération lañ mm-hmm. bëgg nga liggéey bëgg naa liggéey amoo liggéey awma liggéey lan moo ñu tee am tee am liggéey benn nit bu téye fukki fukki post di ko liggéey moom dong ñu gis ni bu ñu ko fa jëlee woon nga liggéey ma liggéey léegi kooku influencé la yow jox la cent mille francs nga ànd ak kooku ba ma mhm. léegi duñ ko mës a folli duñ ko mës a folli moom daf fay nekk chaque jour ngay tardé may tardé loolu moo jàpp askan bi. d'accord ah, yaakaar naa loolu am parce que ñi ci yeew ah. ñii nelaw ko ëpp. yaa ngi dégg kon bu ñu dëgër ci ne opposition bi bu xoola ba pare askan Sénégal dafa am benn affaire bu ñu bu ñu bu ñu bu bu leen réer. Hmm. événement mars ya dañ cee téye ni nguur gi amatul dara mars xam nga dañoo xeex ba génnee Sonko ñu mel ni askan bi dafa booy boycotté nguur gi bu ñu fàtte ni nguur gi nag dañoo am ay kilifa yoo xam ni ñooy seen kilifa ñooñu gedd ñàkkaguñu ñooñu ñàkk nañ la yow du mais ñàkkuñu sa kilifa d'accord ki nga xam ni ñàkk na la ñàkk nga doom yaa ngi dégg ñàkk na doom ji mais ñàkkul baay ji ba tey mi ngi am doom ji bañ-bañ lu yàgg na ci doom ak baay mais bu bañ-bañ loo papa bi la jur mën na la conditionné sénégalais yi dafa am ci lu ñu tënku li ñu tënku noonu. Hmm. moo leen xaw a yeew. d'accord moo tax ma ni sonku ak Bougane bu ñu naagu parce que ñooñu noonu ba tey gisaguma ñu wan ginnaaw état bi ñi ngi ànd ak état. da nga yaakaar ñi ñi tax loolu ba léegi ñoom ñu ngi ñi nga xam ñooy état bi. addi kaa ma wax la yow ma wax la benn affaire fi ma mm. tënku man fi ma tënku. Mm-hmm. man fi ma tënku. yaa ngi dégg ñooñu ñoo la ñoo la ñoo la tënk tënk ma. yaa ngi dégg. Mm-hmm. te yow lañ gën a tënk ne man man sama bañ-bañ lu daa am sens. waxal rek. d'accord ah waaw. Mm-hmm. loolu am na solo ah, Jimbori yaakaar naa. sénégalais yi sénégalais yi dañoo téye ni benn gouvernement lañ am fii amuñu benn gouvernement. fii dafa am ñaari ñetti gouvernement moo fi nekk. Sénégal fii. ñetti gouvernement moo fi nekk. lu leer laa la wax. Ah. tey hmm. koo gis mu nekk ci gouvernement. Hmm. am na sëriñ. Hmm. waxal. léegi day tënkee ba pare ñu tënkaat ko. d'accord tënk ki mu bëgg a tënk. d' accord seekaat ma ma ma ma wax la benn affaire. Mhm. ñoom sax ñoom sax nguur ah, ah, woy politique yi dañoo dem bay sonal kilifa diine yi. Mhm. parce que Dia Mamadou dafa ne woon pour pourquoi ñoom politiciens yi mu li ñuy war a doxal te politique la te ñee xamuñu ci lu bëri est ce que mënuñu ko doxal seen biir ñoom loolu la loolu waxoon sengoor de. Mhm. Senghor rocceeku dem boole di ko influencé te lam ko lim ko wax moom. ne am na lu xam ne xamatay ñi nga xam ne ñoo bokk ñoo bokk làng bu ñu àndee ñëw di boolente ci yow am na ko jubut. d'accord waxa rek. d'accord ah waaw. d'accord jubut ah. loolu am na solo bu baax euh, euh, angle boobu bëggoo euh, gis naa taxaw nañ fa yaakaar naa am nga ci ay leeral yu am am am solo mais fi ñu duggaatee jumboor yi yaa ngi koy wax. Euh, président de la république euh, tànn nag nga xamante ni moom mooy candidat am nekk Amadou Ba euh, naam sànq yaa ngi ne ba pare nanguwul opposition bi tànn ki nga xamante ni moom na bëgg mu Ousmane ko donc fi ñuy dëkkaate mooy gis nañ F24 waroon def li nga xamante ni moom mooy manifestation ci vendredi bi naam amul donc ñoom nee nañ bii mooy cinquième fois ñu koy def mënuñu mënuñu ko def saa yu ko defee ñu tere leen ko donc dimanche muy suba 20h dañuy def bureau yi ban jàngat nga am ci loolu. ban jàngat laa am ci ñoom marche yi ñuy def ñu leen koy tere. waaw mais bu Abdou Koudia loolu amul jàngat. ñoom tey jii waxtaan bi ñu dajaloo ñoom waxtaan ko daje fa ñoomu neen. Mhm. nangu luñ ko opposition bi. la moo tax à chaque fois li nga xamante ni moom la population bi di di bañ a nangu ñoom bu ñu bëgg a dajee waxtaan ñu nangu leen ko naam bu opposition bëggee ko def ku ci mel ni F24 yaakaar naa ni euh, euh, euh, warul mën a bëgg li nga xamante ni moom mooy manifestation aussi ñu tere leen ko. waa xam nga tey ma wax la benn affaire. Mhm. Euh, euh, droit wu parti. Mhm. ndax mars bokk ci. ci la bokk mais léegi bu ñu demee ba ñoom li leen tënk. Mhm. yaa ngi dégg war a tënk sa moroom. yaa ngi dégg sart xam nga tey lu amul sart est-ce que am na. defe naa gendarmerie dafa am sart. police am sart. politique am charte nitu diine am charte lépp ci ay charte lay dox mais bu ñu politique tey pour man amatul ay sart hmm. pour man. amatul ay waaw ñàkk sart mënut a weesu ngay def lu xam ne sa moroom bu koy def doo ko ko nangul. Hmm. waxal. Hmm. ko léegi yow ci ban sart nga ñu bëgg a teg. d'accord waxal. ni nga amee droit tey dajaloo presse bi yëpp ñëw. nga tànn sa candidat ndax ñoom amuñu droit mars. waxal. am nañ droit mars. am nañ ba pare ma wax la benn affaire. waa Abdou Koudia. màggalu Tuubaa ak ni mu toll gàmmu Tiwaawoon nag ni mu toll moo gën a naqaree regle ay ab mars mhm. ni ñu def ñoom ba régler màggal gi ba yenn yi amu fa régler gàmm gi ba yenn yi amu fa mais boo ko defee ci mars bi est-ce que ñooñu mënoo ko régler mars moo mars moo gën a tuuti waaw surtout euh, F24 nga xam ne ñoon mars pacifique la ñuy def euh, waaw da ngay gis bu ñu paree lépp li nga xamante ne moo fa nekk dañ koy for yóbbu ko est-ce que waaw léegi ni nga def ba protéger gàmm yi ak màggal yi lu tax mhm. munoo ko def nga protéger leen ñoom waxal. Mhm. léegi kon am na loo nar. naa am ñu fi bu ne demee dañuy def biir wi comme ni ko Ousmane Sonko def concert casserole tëgg pour ñu mën a xam que ñoom euh, li ñu leen tere moom moo war a ñu def fa loolu est-ce que war na ñoo mën a toll. noo xam nga opposition bi bu doon maay ñoom lan la ñuy def. Mhm. amatuñu benn message bu ñuy jàllalee ñoom xamuñu ni seen message dafa jàll te yëguñu ko. Mhm. wallaay seen message jàll na mais ñoom yëguñu ko. ñoom bu ñu yëgoon li bu ñu yëgoon bu ñu yëgoon li ma yëg man. Mhm. xoola nañ dem naani café ah bon oui seen message jàll na de. Mhm. askan bi xam nga lan la ñuy xaar. ñu defar mbañ gàcce gi. bu ñu defaree mbañ gàcce gi yuuxu jub fu ñu ko foogee ah, wut. mais tamit euh, lu mel ni Sénégal démocratie da cee baax tamit dimboor yi. non mais xam nga tey ma wax la benn affaire tey. Euh, tey am na loo xam ne ñoom bu ñu ko forcé mhm. li ëpp doole ci ñoom bu ñu nekkee ci kaso rek baaxut. nañ fexe li ci des ñoom ñu kor koral ko. ñu bañ a def dara. waaye eh nañ dem ci bataille ci est-ce que loolu dina jëmal li nga xamante ne moom lañu bëgg en fait. kan non waaw bu fekkee dañoo toog bàyyi est lu ñu bëgg dañu ko bëgg. noo loolu ñuy def tamit mën na leen yàqal ñoom. d'accord xam nga buy bu lay def loo xam ni day sukkandiku ci li ngay def. Mhm. di la galgal léegi danga koy bàyyeek lépp ba mu def ba pare nga fekk ko si biir li mu def parce que Macky Sall bi muy gagné Ablaye Wade dañoo bàyyee Ablaye Wade li mu bëgg a def yëpp fekk si ko ci loolu gagné ko. ku ma amul ndey ak ku ma am ah, ndey dafa mel dafa am parce que Macky Sall mi ngi tànn ñu bàyyi leen ñu def ko naam ñoom bu ñu bëggee def seen rassemblement ñu tere leen ko si ñu te non yooyu yëpp amatul solo léegi xam nga du campagne bi dina ubbi. Mhm. campagne bi bu ubbee nañ dem ñoom li ñu doon jàllale jàll na neel ñii ngir yàlla ak yonent bi li ñu doon jàllale jàll na. Mhm. xam nga nit dangaa war a natt yow li ngay jàllale jàll na wala jàllul te ñoom li ñuy jàllale jàll na ba pare <laughs> mais xam nga fas lu mu daw daw du teree nga yokk ko yar xam naa dañuy yokk yar mais ya nee leen yar bu njëkk bi saf na sap mhm. ñu ngi koy yëg ñun demee biru bi nar a def vingt heures man de man su fekkente ne dañ koy def mhm. mu leen gàllankoor mhm. jaratul ñu leen ñu koy def ñoom xam nga lan lañ war a xaar nañ dem defar seen diibaa diib na làmb ji sàjj rek ñoom nañ dem tëddi récupérer làmb ji sàjj <laughs> d'accord billaay walaay su doon maay ñoom dama naan leen dem leen tëgg xaar du ñu ngi defar arène bi du mhm. defar nañ arène bi du mhm. ngeem nañ mbër léegi ñoom nañu fexee récupérer ba mbër moomu bu ñëwee ñu mën ko dékku rek d'accord waxa rek ab campagne bu jumboor yi euh, àndu ci non non xam nga bruit dañ ko war a def ñoom seen marche dañ ko war a def par force mhm. mais li may def li may bañ mooy ñu def marche yaa ngi dégg ñu ñàkkaat ñeneen ci ñoom naa wàllu arrestation. waa kay waa kay waa jàpp leen. Mhm. bu ñu leen jàppee ndax pexe dina sotti. d'accord pexe du sotti ci lu mbooloo war a def. Mhm. munu ci sotti. d'accord yaa ngi dégg. d'accord eh, yaakaar naa loolu am na solo mais tamit euh, Jimbori fi ma bëgg ñu dugg fa mooy gis nañu euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, Ismaïla fa Fall recevoir ñi nga xamante ni moom mooy rappeurs yi demoon fa waxtaan ak ñoom ah, donc dégg lu mu teg seen loxo nee dina waxtaan ak procureur pour bu Euh, nit dof ak ki nga xamante ni moom mooy Abdou Karim euh, Xurum Xaq bu ñu mënee am liberté provisoire euh, donc xelu sénégalais yaakaar ni comme dig nga leen loolu est ce que nekkul ñoom ñooy bomb ñoom ñooy bumbi ban jàngat nga am ci loolu. waa xam nga tey bu ñu demee ñoom di waxtaan pour Karim Xurum Xaq ñu bàyyi ko ak affaire yooyu. Hmm. yaa ngi dégg ah. Karim de wax dëgg yàlla téye biñ ko téye yàgg na. Hmm. am na wala amut. Hmm. du dëgg. dinaa waxtaan ak diw pour ñu bàyyi ko mu dem. Mhm. waroon nañ romb pour man waroon nañ romb foofu. ñan ñoo war a Karim Kurum xaq. lan la doon xeex. Mhm. ak nit dof. Mhm. ma ni Karim Kurum xaq li mu wax bañ jàpp ko. nit dof li mu wax bañ jàpp ko est-ce que amul keneen ku ko wax ku bokk ci ñoom te kenn jàpp ko. xam nga pour man justice nan lay demee. su la su su la soo xamee ni war na la jàpp yow. soo xamee ni war na la jàpp yow mhm. yaa ngi dégg mhm. jàpp boobu war xoola dafa la war a dafa la war a jàppal askan mhm. d'accord dafa la war a jàppal askan mais warulaa jàppal ay benn nit ñaari nit d'accord wax ngi dégg xam nga tey boo jàppee kooku mbooloo rappeur kese ñëw mbooloo rappeur kese ñëw yaa ngi dégg waaw mais est-ce que est-ce est-ce que est-ce que est-ce jaadu na est-ce que jaadu na loolu laay wax quoi est-ce que loolu. Mhm. jaadu na quoi. d'accord waaw. Ah. Mhm. yaakaar naa loolu am na solo mais li nga xamante ni moom na tamit sénégalais yi yaakaar Dembori mooy li ma la li ma la expliqué donc ñoom nee nañ euh, bu fekkee euh, moom da leen a wax kër yi dina wax ak procureur bi pour ñu euh, may leen liberté provisoire est-ce nekkul ñoom ñooy moom ak ji buum bi ñoom ñooy xool lu ñu bëgg ñu def ko lu ñu bëggul ñu def ko foofu laa bëgg ñu waxtaanee. waa xam nga tey li nga bëgg li ñu bëgg a def ñu mhm. def ko. lépp lu ñu bëggul def du am. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. loolu pour man pour man pour man. Mm-hmm. mi ngi njëkkee ci ah maa seet yenn dossiers yi ma teg ci conc d'accord yaa ngi dégg. boobu rek la ñu wane ni ah ñoom ñooy buur ñooy bummi wax dëgg yàlla mais comme affaire bi daal yàlla jàppale nañ fal nañ leen douze ans. douze ans ay kat dem na bari naan ay quatre mois trois mois. yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na ñu yàlla defal jàmm ñu nit. nit dof yal na ko yàlla defal jàmm. Mhm. Karim Kurum xàq yal na ko yàlla defal jàmm parce que pexem boppam kese ak soxlay boppam bawu ko fa. d'accord nit dof waxi boppam kese bawu ko fa. Mhm. keneen ak keneen ñi nekk ci kaso bi parce que tey ñi mhm. nekk ci kaso bi ñu siiw ñu rek nga xam mais ñi fa nekkaat te siiwuñu ñoo ko ëpp. dëgg la mais yow ñi nga xam seen tur rek ngay woo. yal na yàlla def jàmm ci ñoom ñooñu tamit seen xel dellu si ba ñu mën a bàyyi ñooñu ñu dellu si seen sago. parce que kenn ku si nekk dafa am lu ñu bokk te mënuñu ko séddoo lu ñu mënul séddoo kenn ku si nekk dafa génn wax ci xalaatam. Mhm. ki ci nekk nag eh, ki ci wax xalaatam ni mu waxee yow neexu la ba tax ñu ñu téye ko ci. Mhm. vraiment warut. d'accord. parce que ah, bu ñu bokkee kër ngay wax ci kër gi am nga droit wax ci kër gi ñëpp am nañ droit wax ci kër gi mais kër gi ñoo ko bokk mais doo ci wax sa xalaat mhm. wax dëgg yàlla kooku laa mënul comprendre man <laughs> d'accord bañ la ciy ñaan njekk te moo buntu kër gi moomoo kër gi tabaxoo tabax bi doo ci dara mhm. waxal rek da nga ciy judd da nga ciy judd ñun ñu judd ci te ah. dañ ci dee ñeneen juddu ci mais loolu sawaay mooy lan d'accord waxal rek ah, loolu am ah, na aussi fu ciy duggaat Jimbori yaakaar naa mooy démb ci vendredi bi la xew Maroc yaakaar naa ni képp nga xamante ne nii mun naa ni africain nga war a tamit